aussi c'est des personnes responsables yo xamantene bo len encadrer encadré dinañu canaliser sen foule ba heure fuñu wara yam ci manifestation ñu yam sandi sen kàddu après ku ñu tasaaroo maintenant bo gisee mu am ay casse ay yak c'est parce que ñom ñoy andi fitna bi ñom ñoy yabal alkaati parce que autorité ñoy yabal alkaati yi ah ils agissent sur des ordres maintenant vous faites al qaïda dañuy agir ci ay ordre ñan joxe mais ce sont les autorités compétentes Ñom andi yak bi nee la bu yorul boko nga gañ ko mais lan ngay xaar mais da ngay xaar ci pour riposter mais mu dugg day moom tamit day jël benn mu ne waaw comme sànni naa ko xeer mu may dóor lacrymogène man tamit dinaa feneen foo xam te ne su ma fa laalee dafay métti dina métti si ñoom ci ngay gis xale yi daal di daw wutali osan yi wutali eh, station yi di ko lakk mm-hmm. alors que waruñu ko def c'est un bien pour nous tous mm-hmm. man su ma dawalee sama oto gaare mm-hmm. du ma pomper essence yow soo dawalee sa oto gaare doo doo doo doo pomper essence keneen ak keneen bu soxlay dem ravitaillement euh, osan du dem Auchan ci les grandes surfaces là ñun ñëpp c'est-à-dire que suñu bien comme l'homme. même même si y a un logo français parce que au champ c'est un logo français Total c'est un logo français mota xalé yi chaque fois bu une manifestation si peut-être si mbedd bi al yi dañ leen de sonal c'est seen lacrymogène ñoom attaquer les logos les enseignes français ñoom tamit ñu parce que ils am un sentiment anti-français dañoo jàpp ni que tout ce qui se manigance au Sénégal loxo France moo nekk ci ginnaaw moo tax xale ñuy ces choses là di ko répéter di ko souvent maintenant autorité compétente yi ñoo war a jël ay eh, comment dire seen c'est-à-dire que il faut pas à chaque fois manifestation ñu sànni ay lacrymogène il faut pas que ñu xelal alkaati gendarmerie policier yi ñu chaque fois dañu war a sànni ay ay lacrymogène ndigal loolu la ñu war a Sénégal war nañu weesu fort à ne manifestation ça rime avec des lacrymogènes mm-hmm. c'est-à-dire que on doit on doit nous euh, ñu am civilisation il faut pas à chaque fois ñu les Nassarans, si chaque fois nous, ne l'Afrique on n'est pas civilisé euh, tout ce qui est l'Afrique c'est l'obscurité c'est la violence c'est l'ignorance tout ça nous, nga Nassarans, nous, les la chaque fois bët boobu la ñuy mais ñun suñu nous méthode anam yi ñuy doxalee c'est c'est comme si dañuy confirmer encore une fois nasaraan si lu mu yaga wax ci Afrique moy manam la violence la terreur hein, le sentiment anti-réflexe mom africain do réfléchir doole moy manam violence bobu bi may moy manam hein, ignorance moy manam amul xam-xam voilà tout ça il faut que ñu éviter ko té ñan ñoo ko war éviter en commençant d'abord par suñu njiit yi ñoom ñoo ko war éviter ñom ñoo ko war éviter il faut pas à chaque fois nous andi ces de pratique en Afrique hein chaque fois nous dem ay am ay vie hein? ay perte en visite, de ñak cest que nit da ngay roy lu ba roy si ñom jamais ñu sen sen sen wala ñu citoyen ci ay marché ni ni mais mais ñun Sénégal lu ndaw lu ndaw lu ndaw lu ndaw ray nañu rey nañu Ziguinchor rey nañu Saint-Louis. rey na tu vois dafa bari parce que lu xew rek gars yi jóg marche. dafa fréquent trop fi Sénégal. voilà donc euh, xam nga boo nee marche yi tamit dafa bëri il faut aussi nga ne euh, euh, décision yi ñuy jël tamit dafa bëri. voilà ni waral ni mas tamit dafa bëri ami ça à dire que mënoo dëkkee ci fitnal askan. ba pare nga bëgg mu croiser les bras. Mm-hmm. loolu mënul nekk quand même. Mm-hmm. buy fitnal ab askan. Mm-hmm. mais tamit moom dafay riposter. te riposte bi mooy waral ay marche nee naa la la population amul beneen gànnaay bu dul marche. marche kese la ñu mën a fësal seen naqar marche kese la

chaque fois dañuy laaj ay autorisation de marche loolu kese la nekkul ci peut-être marche de dafa bëri nee la marche njëkkewul ci Macky Sall te du mujjé ci mom marche yag na fi même ci en 1960 am 1900 euh, vers les années 40 c'est yi dañ doon marche dañ doon marche donc euh, il faut il faut euh, ñu bay ñi ñu marche franchement mais Arfan junj na la ko sank moy dil bi nga xamni ñu koy wax entre Macky Sall ak ki nga xamni ni Euh, am na sax ñu ni euh, libération yi nga xam ni gis nañ ko démb te ñu ne tey aussi dina continuer euh, dafa nekk acte un ci li ñu tuddee le protocole du Cap Manuel noonu nga ko gisee wala. bon euh, <laughs> ñu bëri xam nga ay analyse bi dafa euh, dafa xaw a différent mm-hmm. ñu bëri mën nañu toog ñene na ñi naan woy protocole ñu ne woy deal mm-hmm. ah deal boo xamante ne kenn mënu ko génnee waaw mm-hmm. ah, génnee ci ay preuve parce que euh, voilà dégg nañu ay ñooñ Ousmane Sonko yi ne Ousmane Sonko weddi na nee moom diilul ak Macky Sall parce que boo xoolee pratique Ousmane Sonko doxalinam depuis bu mu créé parti am en 2015 mille 2015 moom dafa yàgg a nekk opposant radical dafa mës a moom di du diil ci ndodu askan yi du nekkul politicien boo xamante ne comme euh, contrairement aux politiciens classiques mooy maanaam ñu doon diil diil diil ba nekk chef d'état moom nee moom loolu soxalu ko mooy maanaam loolu intéressé wu ko moom du diil ci ndodu sénégalais moom Ousmane Sonko lu mu yàgg prôné mooy maanaam anti système Mais mhm. madame Ousmane Sonko bu donc un Sénégal meilleur Moi, ah, moo mu son projet là aux jeunes Mon dafa ne qui ci lancé il est constant dans sa logique mhm. Moi, tax bu ñu demee tey bay ay deal diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall un protocole de rebus. peut-être amana <laughs> ñoom ñoo créé ce jargon ñoom ñoo créé ces expressions mais Ousmane Sonko bon peut-être à moins que modem un jour ba mais selon Ousmane Sonko bo xamantene mom la habitué son comportement boobu la habitué te mu habitué ko Sénégalais Disons Ousmane Sonko buy deal parce que Ousmane Sonko bu naree diil tay kon du dugg ci kasso bi. et tay bu loolu amone lan moy nek soram bu fekkone ko que mi ngi waxtaan ak Macky Sall lan moy nek soram non tamit deli la mhm. di waxtaan ak euh, président bi pour yow euh, condition yi nga xamni nek nga ci nga daal ci guen non c'est pas un délit. Mhm. c'est pas un délit parce que président de la République c'est le président de tous les Sénégalais. Mhm. bépp sénégalais bu ko sentir mën na ko bindee audience ne ko dama laa bëgg gis wala dama laa yónnee bataaxal pour nga lire ko lolu lolu bép sénégalais mën na ko def ah. mhm. mën na ñaan audience président de la république am ko ñu accepté wala ñu bañ la ko accepté tiens le droit mhm. maintenant Ousmane Sonko bu ne waxul musul le mom du dialogue ak Macky Sall mhm. cest à que il faut que les gens arrêtent de dire de faire l'amalgame entre deal ak dialogue deal ak dialogue du ben deal Ça dit que le mot est anglais mooy manam ñaari nit ñoo tok échangeante ay produits wala d'af, ay business mhm. ah yu bari sax gis nga deal c'est sous forme de business là mhm. ñun ñoo jël le mot daf ko mu péjoratif mhm. mais le le mot n'est pas péjoratif ça dit que comme genre business yo nga andi ce produit maman andi ce pro sama produit ñu ñu déggoo ci mbir manam jaay ma lii wala ñu échangeante jël li li c'est ça le deal wala nga yor produit ma ne la euh, jaay ma ko nga ne ma ñaata ma ne la nii ñu waxaale ba tombe ni ma jox la ko c'est ça un deal. mais ni ko déggee fii Sénégal. voilà am na ci kenn koo xam ne profité wu ou am na am na daal loo xam ne moom lañ nax ci suuf loo xam ni peut-être du askan bi. exactement moo tax ma ne la nuñ koy jëlee au Sénégal moo ñaaw. Mhm. c'est-à-dire que mot bi nuñ koy interpréter au Sénégal. Mhm. dafa péjoratif dafa ñaaw. Mhm. mooy maanaam boo déggee deal au Sénégal. mooy maanaam. Qui sens négatif mhm, mhm. y maanaam ñii ah, ay comploteur la ñu ñii y ñii connu ci lu bar. Mhm. c'est ça le sens péjoratif du mot deal alors que en réalité le mot deal c'est pas péjoratif wax la ko expliqué naa ko Moi, t'as tax la Ousmane Sonko gisuma ni que ci sens péjoratif bu ñaaw dina dem ba sobu ci mbir momu moy manam ci Sénégalais wala ak Macky Sall Ousmane Sonko bu un sa du ci mhm. parce que il avait les cartes en main. Ousmane Sonko avait les cartes en main bu ne a tax mu diil ak Macky Sall ba duñu ñu parti am tay duñu Google ko duggal kasso duñu duggal dugal nit bu laalee ci mom du ko duggal ci kasso Ousmane Sonko mënoon na diil bu yàgg. bu fekkee bëgg na diil non non non mënul mënul mënul le rectifier tu sais pourquoi. Mhm. même bu rectifier mënul nekk candidat parce que le conseil constitutionnel a maintenu les candidats mais pourquoi donc c'est quoi intéressant Ousmane Sonko mhm. mu diil tey mhm. en sachant que même bu gagnez, même vous ko du gagner parce que mon peut-être bëgg bëgg nek candidat même si c'est pas forcément maintenant tay bu deal ak Macky Sall que mu ko ci bi ñu que la du mëna a candidat parce que les les candidats seront maintenus par exemple deal bobo à quoi c'est intéressant mm-hmm. Ousmane Sonko moo tax la ñi taxaw tay di deal c'est pas un deal Ousmane Sonko dafa poser ses jalons dafa am conditions bu poser Macky Sall dafa né dialogue bobu mëno ko au moment où des Sénégalais sont en prison, au moment où on a des détenus politiques. Maintenant,